mbokk yi ñu ñuy teewlu ci seen numéro 1 de l' actualité sur amatina fan la xewee ca Tëngéej ville de Rufisque ca gox gu ñuy wax Jorga Chérif Nord lan moo fa xew mooy kero bi gaynde yi jëlee Coupe d' Afrique des Nations nakate waxtu wi askan wi di génnee di génnee seen mbégte ku ci nekk di kontaan ci ndam lu rëy loole nakate am na ay ndaw yoo xam ne ñoom ñu ngay jëf-jëf ju doy waar ndax ndaw yooyu noonu dañ leen a jàpp fi mu ne ni teg leen loxo ba sax euh, dañ leen a defeere ndax euh, maanaam dañoo def li ñuy tubaab di woowee maanaam viole collectif euh, mais ils sont présumés violeur lan moo xew li xew mooy dafa am ndaw soo xamante nii moom dafa tëx ba pare muuma nekkoon jaaykatu cere am 16 ans fukki at ak juróom-benn di jaay ca angul koñ ba waaye waxtu wi nit ñi di eh, wane seen mbégte ca la ndaw yooyu profito ñoom nee nañ àgg ci ndaw sa daal di ko paasante jëf seen jëf ju ñaaw joojee ba nga xamante ne sax moom dafa mujj xam. waaye nag après ci la ko ay nit dimbale eh, bi ci eh, njabootam jotee moom woy juróom wu jigéen daa dee jéem waaxu gaaw àgg hôpital ngir xool doomam situation gi mu nekk waaye docteur yi bin ko seetoo bin ko seetee ca lañ gis ni kat naka te na ñàkk ndawam bu jigéen yor ca la àgg ca police maanaam Rufisque googee guy murit daat fay déposé plainte policiers ci seen xareñ ñoom itam ci lañ jéemee ubbi enquête ba jàpp juróom-ñaar nit comme ni ma leen ko waxee mujj nañ leen teg loxo mu di jëf ju ñaaw joo xam ne askan wi yëpp a ngi koy waxtaane ndax ndamu askanu Sénégal ci Coupe d'Afrique bi war na nekk jëf ju ñaaw ci ñenn ñi ci seen maanaam morom ci askan wi di leen jaajëfal